Jimbori borom waa aca wekki na waxi Adamo ji nga xam ne moom la waxoon ci Keba Seck ginnaaw tukki ji nga xam ne moom la waroon tukki ci Italiano def fa ay concert a def moom Keba Seck Adamo ci génnam bi mu jot a génn dafa xam le ni Keba Seck la ñu dugal ci ay xeetu moo bari woon ba nga xam ne dañ leen a far ci dëkk bi Jimbori nee na loolee du dëgg dara amu ci information la yoo xam ne moom moo ko créel boppam teg ko ci ba noppi itam di ko wax yow Keba Seck toppal ci ginnaaw Wally Ballago Seck Adamo mënoon naa yem kott ci joxe ay information waaye lu muy ñoqali ba ca Wally Ballago Seck lan moo tax mënta génn ci diggante Keba ak Waly ndaxte diggante baay la ak doom su doon man la man jumbóori képp ku dal ci sama kaw rakk baay su boobaa dal nga ci sama baay danaa dal ci sa kaw te dinaa la génn ci sama yëf Waly Ballago Seck moo a xupp ay gëtam te xool te jéem xool nu mu seppee ñenn ñi ci ay yëfam jumbóori ci gàttal wekk na lépp teg ci suuf nee na Keba Seck leen ma leeralal leen ana lan moo waral ba léegi concert am boobee mu waroon a amal ci Italiano lan moo tax génnul Sénégal dem defe ji ko Keba dafa am ñent ci ay nitam ñoo xam ne dañoo déposé seen visa ñu lankal leen ko ñàkk génn génn visa googu li nga xam ne seen visa ñàkk na koo génn moo waral Keba Seck ne man góor laa du ma dem bàyyi fi ñoo xam ne man ak ñoom ñooy àndandoo di liggéey Keba Seck jëfi góor la jëf waaye nekkul leneen loo xam ne moom la ci nit ñi di ci ngawti ngawte ko ci bu ci waa ji dugal amu ci lépp ay kàcc ay fen la yoo xam ne dañu ko monte teg ku ci biir tëloolee man Jimbori may ki ko wax Jimbori ay kàddoom daanaka wekk na lépp teg ci suuf ci aadamoo li nga xam ne moom lañ doon inauguré démb ca fa nga xam ne jam ñaajo moom moo di impact safa groupe société bu bees tàq bu Youssou Ndour teg ci Sénégal bi nga xam ne mooy société bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest Youssou Ndour daal koy amal ci diiru fukki at ginnaaw coow lu bare bari joo xam ne amoon na ci bu njëkkaan ba ñu koy sooga bëgg a taxawal Youssou maa jigéen Ndour nekk di ko muñ ci suuf ba mu mat fukki at léegi nag société ba pare na Sénégal gi yëpp si gi ci ki nga xam ne moom moo di lëru waa di mbalax Youssou maa jigéen Ndour ci discours ba nga xam ne jot na koo amal ci kanamu président jot koo amal ci kanamu askan bi jot koo amal en direct ci télévision yi nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale moom Youssou maa ba mu defee aw discours am liggéey na ngeen gëm seen bopp ndaxte lépp lu ma am sama musique moo ma ko may lépp loo xam ne taxawal naa na ko taxawal naa ko sama way yi may way ñoo ma ko may man Youssou Madjiguène Ndour kon nag liggéey leen te am fulla ci li ngeen nekk liggéey leen te am fayda ci seen ci li ngeen nekk Youssou Madjiguène Ndour ci la jëlee wayam boobee nga xam ne ma nga ca naan lu amul fulla ak fayda man daal bokkuma lépp loo xam ne yaa ngi koy def boole ci fulla ak fayda man Youssou Madjiguène Ndour ci loolee laa nekk Youssou Madjiguène Ndour doom ja di Birane Ndour démb discours ba mu def daanaka xaw naa jooy la Youssou Madjiguène Ndour ak askan wa fa teewoon moom Birane Ndour dafa daal di wax ba àggal daal di xam ne ne yow Youssou Ndour yow sama papa yaa waxoon ci sa benn way daan ne saay-saay du bëgg ku nekk ci yoonu dëgg te itam boo nekkee ci yoonu dëgg danga nga cey weet am na ci ñoo xam ne ci seen biir xool duñ dañ laa bëgg waaye nag bu ñuy fësal dañuy wane ne bëgguñu la ànduñu ak yow waaye képp koo xam ne nit nga te ngay nit ku nite soo weetee ci sa biir ruq di nga xam ne Youssou nduur nit nga te jàmbaar nga moom Birane Ndour noonu la ko waxee dal di wàcc ca plateau ba nit ñi di ko baraawoo ak di ko tàccu

Baaba Maal ci kàddu yi dem ba gisee moom mi nga xam ne moo joxe bi lépp information nee na Baaba Maal nit ku dëggu la Baaba Maal aw liggéeykat la kenn gisu ko mu baril aw coow loolee mooy li waral man dem ba gisee may jéem a génn yenn yi ci Baaba Maal ngir nit ñi mën a xam kan mooy Baaba Béy di Maal jàmbaar gi mu doon liggéey gu mat ki muy liggéey moom dem ba gisee mooy li waral mu jug ngir mën a tasaare lépp loo xam ne baabaa ngi koy jëf ci lu baax te ciy siggil réewum Sénégal Kalifon Sall génn na ci nungu siin ga Kalifon Sall gannaaw ba ñu ko libéré mu sant ak di bravo di delloo njukkal ñi nga xam ne doon nañ ko jàppal tànk te nekkoon ci biti ñi nga xam ne doon nañu ko ñaanal ñi nga xam ne doon nañ ko indil ay añ ak di ko indil ay teraanga ca fa mu nekkoon mu lim ca nga xam ne moo di Cheikh Omar Diagne na Cheikh Omar Diagne maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm yow yow Cheikh Omar Diagne lépp lu ma la mësaan a wax ci kàddu yi ñaaw lépp lu ma mësoon a teg ci der wi ci ay xeetu musiba ak mbelengaan maa ngi sàkku ci yow nga jéggal ma ko loolee lépp ab juumte la woon boo xam ne man Kaliphone Sall def naa ko waaye nag gis naa teraanga ji nga xam ne daan nga ma ko indil bi ma nekkee ci nungu siin Cheikh Omar Diagne nit ku baax la Cheikh Oumar Diagne nit ku gën la moom Kaliphone Sall sant na gërëm na ñëpp waaye président Macky Sall moom dafa mel ni ku ko ignoré teg ko ci suuf dafa mel ni ñoom lay sant ak di leen gërëm ki nga xam ne moo di ndooy baan dafa ni nit ko am fulla laa fi gis man nag damay sant yàlla bi mu nekkee sama patron damay sant yàlla bi ma fekkee inauguration bi ma nekk itam bi nga xam ne maa jiite piir man ndooy baan damay roy ci ki nga xam ne sama jigéen la nit ku dëggu la nit kuy liggéey la li may wax nag mooy nañu liggéey te bàyyi fen yeeg tappale yeeg kàcc yi ñu fi nekk Sénégal liggéey la ñu laaj waaye gëmum ñu ay wax ay yoo xam ne waxi kasaw-kasaw la ak waxi neen man Ndoye Bane noonee laa ko defee fa ma nekk di liggéey jamono ji lee demal nga tàllal leen sa micro nga laaj leen ndax Ndoye Bane dafay wax wala dafay jëf su boobaa dinañ ne la du wax waaye dafay jëf Youssou Madjiguène Ndour loolee la nekk ci Sénégal kon nag na ngeen roy ci moom te bàyyi tappale yi ak kàcc yeeg feni neen nekk fii di tappale ngir jot ci suñu réew loolee du fi am aw liggéeykat dong mooy toog ci réew mi kon nag Youssou Ndour la ak fayda ki nga xam ne moom la amee na ko ñëpp daal di roy moom dooy baan message boobu la lancé jagleel ko ñenn ñi message bi Mariam Dial lancé moom actrice bi nga xam ne maîtresse d'un homme marié lañ ko gën a xamee moom Mariam Dial jafe-jafe yi mu jot a jàll ci àddunaam donte ne amoon na fi aw maladie boo xam ne ñëpp tuumaal nañu ko fi joxoñ ko baaraam ne dafa dof moom Mariam Dial mu nangu ko ne amoon na feebar boo xam ne daf koy tàqale aku xelam Mariam jal am na ay jafe-jafe yu bare bare yoo xam ne jot na ko dund waaye terewul ngay gën a forcé nekk ci objectif am ba tolli fi xam ne moo di ca page Instagram am boole kook boo xam ne ma nga ci sol yére yu jot yu ñuul kuku daal di cay bind quand maanaam su dund gi jafe te métti loolu loolu ñi nga xam ne ay jàmbaar dëggantaan lañu ay nga war dëggantaan lañu du tax ñu daal di tëdd du tax ñu daal di bàyyeeku du ñu bàyyi seeni loxo dañuy gën di wéy di gën a xuus di gën a jàll ba daj ci seenu objectif moom Marème Dial nee maa ngi soñu ñëpp ngir ñu bañ bañ a décourager lépp lu mën a xew ci sa àdduna itam foncel bis dana ñëw nga daal jël li nga xam ne moom mooy sa wàll ci nar wi ki nga xam ne moo di Zeyna jël na wàllam ci nar wi moom itam doom ci Viviane Chidid ak ki nga xam ne moom moo di Bouba Ndour Zeyna Ndour aljuma ji dafa daal def col goo xam ne dafa dëpp bis mu sell bi moom Zeyna Ndour ba noppi itam di défilé di wane na mu mel ak col ka ga mu sol di wane na mu mel ak na xam ne noonu lay dundee donte ni sax am na ay rumeur yoo xam ne am na ku ko fi jot yëkkati naan dafay génn ak benn ministre moom Zeyna Ndour dafa mel ni yëgul yenn rumeur yi dafay mel ni yëguñu bee yenn tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy gàll ci seen seenu ndodd ak lu ci mën a xew itam ma nga caw yoonam lu ci mën a xew itam ma nga caw liggéeyam ànd ko pat ba noppi itam di wane ni dundam mun koy dund waaye faalewul kenn li fi doxoon ci diggante Mbathio Ndiaye ak Dabaye Barre Dabaye Barre ci boppam génn na daal di cay addu moom Dabaye Barre ci benn interview boo xam ne waa diaspora 221 ñooy ñi ko jël ci la daal di addu xam la ni coow loolu weesu naa ko mu ngi ci sama ginnaaw xamal man daal am na ci information yoo xam ne doon ma doon nañ ma ko ci bindal loolee dara ci amul la ca xewoon convocation la boo xam ne dañu ma toog ñu wax jox ma ma wax delloo leen ñu ne ma da nga koo tudd ci sa benn vidéo boo xam ne waa ci sa benn mbind boo partagé ma ne leen loolee amul liir leen ko te xool ko bu ngeen ko xoolee bu baax du ngeen ci gis turu Mbathio Ndiaye commissaire boobee daan ne mënuma leen a àtte yéen faaw ma yóbbu leen tribunal ba ñu demee tribunal itam noonee la fa demee ma wax jox leen ñoom it ñu ñu man Mbathio Ndiaye léegi sama diggante ak moom moom jeex na tàkk Sénégal li ñu xam mooy ku fayu waaye xamuñu ku tooñ waaye man ba da baay baare xam naa sama bopp te itam xam ki ma doon ba ko laajee ci coow li nga xam ne dox na ci Don Diego ak kàddoom yi mu yëkkati jagleel ko Wally Ballago Seck nee na Don Diego mooy ki gën a neex ci àdduna bi kon nag ay kàddoom jarul ngeen ciy tardé ndaxte Wally sax Wally Seck ci boppam sax bu ko dee déglu daf koy def ay reetaan moom da baay baare tàgg na ba noppi itam daal di wax fi mu jaar ak jëkkëram ji nga xam ne moo di Armand Ndiaye feccikat ci Wally Ballago Seck beneen waykat bu jigéen di doom ci Ousa Diallo ñu naan ko aju Ousa génn na benn single boo xam ne clip bu doy waar la ko def muy monsieur Bonheur gannaaw madame Bonheur bi nga xam ne yëngal na réew mi yëngal na TikTok bi yëngal na fépp ci réseau social bi moom Adji Ouza doom ci ki nga xam ne moo di père Ouza génnee na monsieur Bonheur monsieur Bonheur mu daal koy jagleel góor ñi gannaaw ba mu defalee jigéen ñi benn léegi nag góor ñi jël nañ seen wàll ci nar wi ci moom Adji Ouza muy woykat bi lindel na boppam dëggal na boppam nga xam ne ay ndaanaan lañu fii ci Sénégal. Cheikh Tidiane wàcc Sodaan la mbokk yi kenn du lëndëm di taal làmp bu ñuul lumière bi feeñ na sëriñ seex as barxaama borom li jaaba nekk ku yàlla baaxal ci wàllum xam-xam kenn naa tableetul ni moom mooy sëriñu Real de Madrid waaye tamit di ñaanal leen ki nga xamante ne mooy équipe national bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu baax te gisoo leen ko dal leen a jàmm ci sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow miy cat sonal ba loo dugg doo ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seeti sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mii di wut kayit wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu yow ab ba amagoo bërëm kër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaa ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo mun ti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir te lépp koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jaam ñi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24